xibaari bitim réew yi dañ koy doore ak réewum Mali foofee nak soldat yi nga xamante ni uh, moom la fa Nations Unies yóbbu woon ngir ñu daal leen di jàppale ca seen jëngumaan ya uh, ñooñ ña fa desoon ñëpp nag daal di nañ fay jóge tey jii di le 15 novembre 2024 uh, Donald Trump moom nag daal di nay waxaat ca état Floride di xam ne ne ger bi dox ci diggante Russie ak Ukraine nag war naa jeex moom nag laataa ñu koy fal waxoon na nag buñ ko daal di fal bu buñ ko daal di falee nag dina jeexal guerre boobee dox ci seen diggante la nga xamante ni askan ya moom la ñuy sàkku foofee Israël bombardé na benn camp réfugié ca Khan Younis ba lu ba mu faat fa lu toll ci juróom ñoo xamante ni nag ay way daw làqu lañ ba tey Israël ñaawteef yi muy amal daan nay bombardé fa nga xamante ni mooy Rafa nekk fee ca bande de Gaza ba lu toll ci ñeenti ni darte tey ñàkk seen bakkan. armée bu Israël moom mooy xam ne depuis le 7 octobre di bis bi nga xam ne moom la njëkk amalee song ya foofee ca Palestine ak léegi nag lu toll ci 794 ci seeni soldats daan nañ cay faatu. yu Human Rights si moom nag di ab ONG moom mooy xam leen nag Israël li muy def nii nag ab génocide dëgg la ah, moo tax na nag nee na mooy faat askan bu bu jéggi dayo bi nga xamante ni moom lay amal ah, ñoom nag ñu ngi moom ONG boobu nag moom mu ngi nekk ONG boo xam ne day toppatoo lu jëm ci wàllum àq ak yelleefu doomu aadama ah, waaye nag nee nañ lii tamit dafa nekk loo xamante ni crime de la xibaar yi bitim réew yi dañ koy jeexalee ca Liban Hezbollah nag ñooy xam ne ne sànni nañ benn rocket mu daal di jóge Liban ca Israël ca fa nga xamante ni mooy golfe Xifa ba lu toll ci ñetti civil daat cay am ay gaañu gaañu xibaar bi nag waa Israël daan nañ koy dëggal ne bi bu wér la kon mbokki li leen indiloon suñuy xibaar di jaajëfal nday ma dem ak roqo yi ma fare ci côté technique bi di leen jox dig daje ba suba ak